Sénégal ñu ngi leen di nuyu ci nekk sa tur sa sant waaw ñu commencé benn waxtaan boo xamante ne bon ni Sénégalais yi dëggantaan njaay di mais ni Sénégal di doxee actuellement xam nga affaire bi nu mu demee dëggantaan njaay ci loolu lañ a waxtaan ñoo a wax wala ñii ñoo a def ku nekk am nga sa xalaat par rapport ak xam nga situation bi nga xamante ne moom la ñuy dund feebar la boo xamante ne peut am ci histoire ñun ci ñu fekkee ñun bokk ci suñu génération mosuñu jànkonteel ak yenn genre affaire yu demee nii mais yii nag bu demee nii comprendre yoon na ñu nekk ku nekk mën a wax sa xalaat par rapport ak situation bi mu demee nii comprendre parce que jékki-jékki nañ ci rek dégg nañ xam nga benn feebar la boo xamante ne Chine la jógee xam nga chinois yi ñu ngi koy dund am na ay cas yoo xamante ne chaque fois muy accéléré chaque fois cas yi di accéléré xam nga jékki-jékki prix dugg na France prix dugg na Italie Espagne xam nga ak yeneen dëkk yi jékki-jékki mu ngi suñu dëkk xam nga mais affaire yi tam dafa am loo xamante ne loolu moom moo waral mu dugg suñu dëkk comprendre dafa am yoo xamante ne tey jii par exemple tey ay matuwaay yoo xamante ne moom la ñu waroon jël dès le début dès affaire bi ba amee affaire yi moom ay masla di seetaan ba affaire yu dugg suñu dëkk xam la après gars yi nekk fi di ñu solo di ñu tegal ay affaire yoo xamante ne c'est pas xam nga loolu laa am daal lu may wax par rapport ak situation bi amul xaar ba kenn pare keneen wax. ok ok dama la bëggoon kaw. ok. def ba dugg biir Afrique instant wax ci donc loolu la Uwe déjà parlé instant yii nii xam nga la moo fi nekk li nga xamante ne moom mooy sujet bu mooy comment faire pour sensibiliser la situation. mais munoo sa defal ndànk booy defal ndànk amul su munoo sensibiliser Sénégal fii nii mu dugg bi loolu mooy suñu problème ñun dañuy jékki-jékki rek 4 cas mais na ku nekk toog seen kër na ku nekk raxasoog saabu école yi jàng nañ si 2 cas wala 3 cas. c'est-à-dire affaire boobu tamit man. affaire yooyu mais mais yow réellement loo bëgg faible. naa ne am na de mais dama jàpp ne man état bi information yi ñuy jox ni naan ay ay 64 cas ay 44 cas yeneen dëkk yi noonu lañ def bu ñu waxee 64 cas égale 300 000 cas. mais mais mais mais mais mais mais mais dama la jox benn exemple. dana ni jël na yenn mesures yi xam nga tëj école yi xam nga. aéroport yi li nga xamante ne ni moom moo nekk facteur bi nga xamante moom mooy gën a développer suñu économie nga tëj aéroport tëj lépp lépp lépp lépp lépp donc da war a xamante ne automatiquement que ni cas bi affaire bi instant yi nii pandémie bi fu mu toll dafa sérieux comprendre raison pour laquelle moom état bi jël matuwaay yooyu yëpp yëpp yëpp yëpp mais comme ça que li ma la doon wax nga dagg nga dagg ma moom mooy gis nga instant yi population bi dañu dañu conscient wul ci ci ci maladie façon façon façon façon bi nga xamante bu baax dañoo war a yeewu bu baax a baax a baax. gars yi conscient nañ de booy dafa ba léegi. xam nga tëj aéroport bi ñu koy wax ñu koy wax. mais ba léegi yaa ngi gis gars yi da ngay dégg ñu ne diw euh, dafa ku jógee kaaw dem na fee. am na ko mais lan mooy tëj bi est-ce que nañ ko. léegi léegi maa ngi dégg ñu naan Ziguinchor am na benn cas foofu am ak Europe la jógee indi ko foofu. cas yi yow yow moom yow bu ñu yi waxoo benn la <laughs> affaire yi na mesure waroon waaw la di ji mu mais ngay xaar ay ndigal. mais le coup est déjà ngay xaar. le ngay xaar bu tëj bu tëj sa frontière. suma waa ji yi ngeen di ay cas importé cas importé frontière tëj nañ ko kenn dugatul mais xam nga lan mooy problème bi nga xamante ne jotoon nañ dugg naa foofu mais mais di mettre en confinement wala bi di mettre en confinement seen kër lañ leen mettre en confinement dañoo wàll seen njaboot faut ñu boole si borom xam-xam yi tamit ñu wax seen contribution la ñu wax si lan lañ xam ci daaw épidémie ndax mos na am parce que buñ delluwaatee ci histoire ñu na am la ñu xool l'islam nan lañ ko jàngatee problème bi situation bu ñëwee rek foog ñu dellu si l'islam ñu xool naka lañ jàng situation yi depuis le départ depuis le départ leen la ñu wax feebar bu amee ci benn dëkk dañu war a tëj frontière bu fa kenn ñëw xam nga bu fa kenn demal foofu ñun foofu lañ faussé ak fu mu jógee Chine la jóge français yi nekk Chine ak italien yi européens yi nekkoon Chine ñoo daw. biñ koy dégg yàgg Europe. Europe dafa def nii ak Afrique moom amee Europe daay dawaat dugg euh, Afrique loolu mooy a njëkk a fermé loolu mooy a guerre première guerre bi loolu. loolu guerre bi stop na nga ñaan tamit. waaw su ma dem dafay ñaan. waaw xam nga ñaan tamit. mais Sadio mais Sadio est-ce que Sadio. léegi ñaanu ñaanu gaa yi est-ce que borom xam-xam est-ce que borom xam-xam ñi ngay wax nii dañu leen war ñu wax. non non borom xam ne dégg nga xam nga daal yéen a mën a xam nga mbir bu amee si dëkk. xam la yow da ngay xool la nga sën a fekk la nga sën def sa contribution xam la parce que lii tollatuñ fi nga xamante dañuy taxaw ne xam la kii ñëwal def wala kii ñëwal def xam la xam nga tey man man da nga fa laaj xam la ku nekk dafa am part de responsabilité quartier bu nekk lu mu dee dee waroon na jël benn cotisation xam la cotiser pour affaire bi parce que lii nekkatul intérêt benn nit xam la intérêt pays la waxuma ko moo dem intérêt pays la ñun ñëpp fu nekk war a xool lëng ci mën am nañ benn affaire ngir may du xaalis de non defal naa affaire du xaalis kese foofu la ñuy fàtte dañuy foog ni bu ñu amee xaalis dina saafara loolu yëpp affaire bi xam na lan la nañ ñi ñu booloo bàyyi ñu ñu jaamu borom moom kese donc médecin bu la wax ne lii feebar mun na ko dindi àdduna day wax lu ko neex barki yàlla borom bi kese moo mun a yëg ne lii suñu kaw. léegi bu ñu déggoo léegi yëpp yëpp yëpp xaalis laay xaalis kii xaalis xaalis xaalis kese xaalis kese faju ko d'accord mun na xaalis mun na faj na jóge fii. te borom borom bi kese moo mën a yëkkati lii. waaye yow léegi yow léegi yow dañu ko bàyyi ñu julli. yàlla béy sa tool ma fa benn affaire bu ndaw. yow yow yu yow yu fan yow léegi yow nañu ñaan yàlla suñu borom nañu sabalu suñu borom boobu. nañu sabalu suñu borom boobu muy wax. nañu sabalu suñu borom boobu noonu yow su si lan nga ko teg si lan nga ko teg. man lu muy digal lu muy digal. non xaaral rek saa yu ngir yàlla na ma tontu si loolu dama mën a xam yow yu nañu nañu utum xaalis bi c'est bien vrai wax nga dëgg dëgg léegi dañu war a sabablu suñu borom di ñaan yow loolu si lan nga bëgg a wax foofu quoi si comprendre lan nga bëgg a wax foofu non ñu ngi tuub ku nekk ngi tuub ñu ngi ñaan mais ñaan boobu mu yo fan la koy teg man su ma déggee day mel ni comme par exemple waxul jumaa yi ñuy tëj ak affaire yooyu non non non j'ai pas dit ça personnellement man personnellement man loolu daf maa déranger comprendre nga mu déranger ma mooy mesure yooyu noonu am na mesure yu ko jiitu te man man man man personnellement man sama xalaatu bopp laa la du ay preuve ay dégg naa fii di sosalaate man nekkuma ci sosalaate quoi mais dama nekk ci man nit la am naa xalaat damay xalaat te affaire bi nu mu demee nii dafa buus prix rek nañ annulé événement religieux nañ njëkk a wax nañ njëkk événement religieux nañ njëkk a nañ njëkk nañ njëkk a wax Sénégal comprendre nañ ko nañ ko dindi tuuti dawal tuuti tëj juma maanaam avant tëj juma ak affaire yooyu noonu mooy li waaj wax kan moo war a kan moo gën a abrité sax pour wax nañu nga tëj parce que tey jii nga war a njëkk a tëj ba mu juma mooy tëj moom mooy li mu lay rejoindre Sadio si li nga wax commencement bi xam ma la tey jii état bu demee ba ba teg ne dañoo war a tëj juma wala affaire yooyu noonu maanaam am na ñu gën a abrité ñoo xamante ne bu ñu taxawee tey xam nga bu ñu leen tàllalee micro ñu taxaw seen si télévision yi ci boppam comprendre taxaw expliqué ne nii la ñuy xam nga jéem a organiser julli bi xam nga organiser nañ ko jàllul jàll deuxième étape mais prix bi rek tëj bàyyi xam nga non tey jii man lu ma jàpp man ci lu ma jàpp na eh, lu am na lu jiite ma am mbir mi mbir mi yàlla moo moo këpp musiba bi suñu kaw waaw te yàlla pour ñu dellu il faut nga faut ñu delluwaat ginnaaw faut ñu bàyyi suñu bàkkaar yi balaa nga tëj juma yi ba pare lu ñu def tëj auberge xam nga tout mu mu mu tëj baar yi tëj auberge yi carrément. xam nga ñun Sénégal lañ ñu yaay seen bopp pour jigéen ne fi lépp war a supprimer ba pare. information da nga tëj jumaa nga tëjal loolu ba pare. championnat championnat championnat Sénégal tëjul. mu ma football yeeg lépp a ngi lépp lépp lépp. ba ba ñuy tëj jumaa yëpp amoon na fi nest mais est-ce que bi ba mu duggee biir Sénégal ba léegi est-ce que dégg gis ngeen activité yooyu noonu nekk di continuer ba léegi mais xaaral déglul rek mais même ma yeggal de sànq ba ngay wax na ma gis nga jumaa yi ak jàkka yi fii nii ñun suñu pays suñu suñu Sénégal 95 pour cent yëpp ay musulman lañu gis nga tëj jàkka bi ak tëj tëj tëj tëj li ñuy tëj ñii yëpp isient déggum la ne amul kenn koo xamante ne bu doon sagoo mu tëj ko mais comme li ngeen wax lii tawat la tawat la boo xamante ne ni ni muy wàllee isient déggu la comme genre lay bañ ay regroupement ak affaire yooyu noonu mais bu ñu demee ba toll si situation yi lii ne ne regroupement lay prime rek muy muy maanaam yow tëj am na ko jiitu organisé ba pare. mais c'est que Sénégal organisation boobu nga am parce que parce que non non non mën naa ci mën naa am nekk ñu ay dof. non xam nga yow li nga sénégalais nekk ñu ay dof nekk ñu ay ay ay fas nekk ñu ay baam ay nit lañ comprendre li mu la bëgg wax. tey jii état moom moo yore doole comprendre li mu la mën nañ organiser. comprendre nga tey bu ñëwee tey si si si jumaa ji ñu waxtaan ak par exemple exemple ma lay jox bu ngeen a teer a teer nga waxtaan ak imam kër kër jàppal bàyyi mais feebar bi moo dépassé loolu baaba ji bi feebar bi tollatul fu nekk nit bu nekk di ñëw di déplacé wu si jumaa ji tollut ku nekk ngay wax gis nga feebar dafa toll gis nga yow ma laaj la benn ah, affaire yow léegi dama lay ah. posé benn question léegi yow yow par exemple yow bu la waxoon pour yow boo xamante ne yow da ngay proposé jàpp yow lan nga ñuy proposé lay wax ni wax ñu ko rek dama ne la benn idée bi ma lay jox ñu njëkk a arrêté juma pare mu jël commencé. mën nañu koy organiser. ñu respecté distance 1 mètre ko dañu mu toogee ne. état mu ah, benn yoon jeune jeune jeune koñ bi ci boppam mun jël relève xam nga organiser que boo demee ci par exemple gée dañ koy julli presque guddi gi yëpp ñii bu ñu jullee dem ñeneen julli keneen benn imaam imaam ñëw jiite leen ñeneen julli dem comprendre nga mun nañu ko organiser maanaam man plan de organisation boobu noonu même julli vendredi xam nga fii am na ay terrain gal gi terrain yoon gi terrain jubóo yëpp a ngi fii comprendre nga lu mu par exemple tey Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique ñenn ñi amul télé ñenn ñi amul télé ñoom ñëw fekk leen seen organisation boobu yow baaji bi yow da nga da nga xam nga lan nga lan nga lan nga si xalaat lan nga xalaat noonu xam nga lan nga xalaat noonu si wàllum organisation julli bi kese kese kese waa léegi julli bi bu jeexee nit ñi da ngay naan leen déedéet da ngay bàyyi ñaar ñi soog a ñibbi ba pare ñaar ñi bu ñu ñibbee ba pare beneen beneen personne boo respecté sa distance un mètre ñibbi bi nan nga koy eh, eh, organiser yow tey boo tëjee jumaa boo tëjee jumaa yow sa ruu day feebar parce que jumaa mooy hôpital ruu mooy dundal sa ruu yow waaw moom laa lay wax ma formé doomu jumaa dafa am importance si doomu aadama baatin ngay wax moom laa lay wax wàllum diine ngay wax mu munti demee am nu demee mu nekk organisé ba nga xamante ne am ñi nga xamante ne dañuy julli génn ñi nodd am ay quelques idées julli. voilà loolu organisation la laaj mais dama ne la. tëj bi tëj bi tëj carrément. xoolal Sadio xam nga lan moo tax xam nga lan moo tax lan moo waral tëj bi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg. gis nga président de la république moo la gën a xam mentalité sénégalais sénégalais moo ñeme tëj dof gis nga jumaa yi bu ñu ko tijji woon comme li ngeen di wax noonu ñu naan dañoo teg ay normes dañuy dañuy respecté lii dañuy respecté. Sénégal si jëm kaw bu kaddu jéego xam nga la nekk bu kaddu fee mu nekk juma loolu ci mais xam nga lan la wax wàllu mbooloo bi ñëw si juma ji wàllu wàllu mbooloo bi ñëw si fa ñun waxuñu pour comme comme si dañuy jënd ala dañoo tëju franc dañoo tëju mais ba léegi affaire bi dañuy gën a yokk waaw ñu ngi si biir kër yi waaw mais loolu Kairou loolu xam nañ ko loolu. ñun ñëpp gëm nañ ko ñun ñëpp ay musulman lañ ñun ñëpp ay jullit lañ la a dee da nga siy dee. mais tamit naa la xasaale Sadio yàlla yàlla béy sa tool. Sadio sabablu Sadio man nee naa sabablu mais Ablaye. li nga xamante ne ne la ko boo dagg mais benn affaire laa lay wax quoi. gis nga situation yi Sénégal mujjee dund si trois ans yëpp muy élection présidentielle élection locale yi ak ak problème kii nii sénégalais yi ñu wax dañoo dañuy ñeme teg dof barki yàlla sénégalais yi lamdaay ñoo a dawal intelligence état sénégalais yi nga xamante ne muy muy affaire yi jot a am Sénégal yëpp si trois trois yi bu ñu toppoon état bi si élection présidentielle yi li gars yi doxal nii si jëlum carte d'identité ak yenn affaire yi dëkk bi tàkk mais dañoo toog mais rek dañoo toog respecté ko normalement coronavirus bii nii coronavirus bi ni mu amee nii sénégalais yi comportement bi ñu am nii toog ku nekk kuul yaru toog sa kër ñu wàññi rek nga gis instant bi dëkk bi mu ngi commencé def selew comprendre ku nekk toog na sa kër bu ko état bi defoon commencement barki fi barki fi yegg. waaw man xam nga xam mooy problème man xam nga lan mooy problème xam nga mel. accident bu amee dañuy gis benn benn dës par le commencement dañuy commencement bi yaa ngi ko dégg bi ñu koy dégg kirikoro yàgg na yàgg ñu ko déggee yàgg na boobu léegi tëjuñu ñuy toog foofu di joxe ay délai ay tel jour lay tëj. mais tel jour lay tëj ñoom yi bu ñu ko déggee si. yow li ngeen di wax xam nga loolu loolu bu ñu ko teyoon bu yàgg parce que yàlla xoolal du pays sol. yéen loolu rek yéen loolu mënul nekk yéen koy bàyyi yéen seen bopp yéen ko signé a boo xoolee boo xoolee yow yaa Sénégal mu mujjee tëj frontière am dëkk yëpp tëj nañ frontière Sénégal moo mujjee te moo gën a néew doole maanaam ministre de l'intérieur boo seetaan ne France 24 xamoo ne li ci France ban hôpital moo fi nekk France du muy xeexee wax nga ban hôpital moo fi nekk du muy xeexee euh, kii bi amul hôpital bu France tëjee rek Sénégal tëj Sénégal amul hôpital ay dispensaire France yow eh tëjee eh, marché noonu la ñuy def te xeex bu foofu bu métti kan moo ko métti xeex bi foog ñu dellu lan moo ko métti jaamu yàlla jamono bi ñuy dig autosuffisance en riz ci musiba buñ ko defoon buñ ko buñ ko appliqué woon suñu bopp xam buñ ko naroon jël mooy moo tax mooy li la wax rek quoi waroon nañ ko tëj ba yàgg jàpp ne askan bi dañoo dof mënoo dañ leen naxee ay slogan yow mënoo woon tëj parce que yow moom moo sa dëgg instant bi li leen sa dëgg yow jaay nga ko instant bi ja ay jaamur ñoo ko bi léegi balaa ngaa tëj da ngay laaj sa bu la ñu tëjul doo ko di ma instant bi débat la xam nga instant bi débat xam nga instant bi débat la dañuy déglante pour dañuy waxtaan quoi xam nga lu mu la instant bi débat la dañuy waxtaan comme ni wax comme ni sénégalais yi diggantaan njaay di xalaatee comprendre li mu la bëgg wax mais dañuy waxante dëgg rek bu fekkente ni dëgg rek la ñuy wax te yàlla tax waaw te yàlla tax comprendre mu la dafa am ay affaire yoo xamante ne dafa am affaire yoo xamante ne dañu yàgg dañu ko yàgg naxee comprendre dafa am ay dafa bëri quoi affaire yoo xamante ne dañu ko yàgg naxee comprendre mu la dafa am affaire yoo xamante ne laajul sax ay milliards volonté politique rek la laaj. nañ ko bëgg def rek yéene ko seen askan rek ñu def ko mu jeex ko mu jeex comprendre na di ñu gëmloo ay autosuffisance en riz xam nga ay affaire yoo xamante ne mooy loolu dem ba moment bii ñu di door a xam importance su loolu. Mm. parce que instant bii nii bu ñu toogee. sometime nii. affaire bi cóol ñu ne ku nekk na toog sa kër te ku nekk na toog sa kër 90 pour cent population sénégalaise bi nga xamante ne bu ñu xëyul génn seen kër du am lu ñu lekk. du ñu am lu xam ngay dem ba ngay taxaw. léegi ngay choisir xam lan laa wax gis nga dañ ko waroon wax en amont mais léegi le coût comme sànq li ma doon wax le coût est déjà parti instant mu ngi ci 62 cas comprendre te cas li ma doon li ma doon ragal Sénégal dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg moom laa démb moom moom laa dégg démb muy trois cas communautaire yooyu noonu trois cas communautaire yooyu noonu ñëpp xam nañ mu demee ñooñu dañ dañ leen ko wàll te xamuñu sax ñan ñoo leen ko wàll donc da ngay xamante ne ni donc virus bi mu ngi ci biir dëkk bi di instant xam nga lan moo nekk su lan lan moo war a nekk sujet tabu bi dëgg comment faire pour ñun ñii nga xamante ne suñu yaay yeeg suñu njaboot yeeg ñi nga xamante ne ñoo leen nekk nga xamante ne maladie la wax état bi mënu koo xeex mais xeex bi sa bopp yow sa bopp lay tàmbalee ba pare xeex bi xeex bi xam nga mooy lan xeex mooy lan mooy lan dañ koy jox borom xam-xam yi mais borom xam-xam yi essay Sadio borom xam-xam nu xam-xam yi ñan ngay wax si borom xam-xam yi waaye nit ñu baax rek comme xam-xam borom xam-xam si ci si métti oustaz imam yi waaw xam-xam waaw oui xam nañ ko bàyyi ak nguur nu koy xeexee nguur gi France lay xool France tëjee juma. Euh, euh, waaw euh, Sénégal tëj France France man man man. loolu ma jaaxal bu nee première étape deuxième étape rek nga gis Sénégal ñëw dugg si première étape bu France bu nee. France dañu toppandoo te France ba léegi musiba ba ngi gën a dugg ñun nag bu ñu toppee stratégie boobu nañ change stratégie. xeex beneen waxee man bu ñu topp France bu mu defal ñu def loolu du loolu du ko France tëj nañu tëj maanaam tëj nañu école yi affaire bi gën a grave tëj nañu maanaam yenn yenn baal kii maanaam yenn kii yenn milieu yi ñu doon fréquentation yi euh, affaire bi gën a grave tëj nañ seen biir kër nekk nañ fàcc nañ seen biir kër affaire bi gën a grave kon ñun duñ topp loolu. waaw léegi yow balaa gën a def loolu xoolal. xaaral fi ma laaj ko yaa ngi a tënku sénégalais yaa ngi gën a tënku sénégalais xañ nga leen si mbedd bi xañ nga leen si car rapide nga leen si jumaa yi mais teewul cas mi ngi gën a yokku imaam est-ce moo tax yàlla du mën a tegg loxo yow ma laaj la yow yow xam-xam yi ngay wax noonu nga ne comme par exemple instant yi nii nañ nañ déglu xam-xam yi mais borom xam yi ñoom xam nañ situation bu toll yow yow yow da lay leer na ni nguur bi instant yi déggum la balaa moo jël yenn décision yi comme comme par exemple jour boobu ba may seetaan TFM ba sëñ Bass Abdou di dugg en direct bay maye 200 millions yi instant yi déggum la da leer na ni gouvernement bi mu ngi consulter nga xamante ne ñoom yooyu ngay wax xam nga am na benn rapport ak benn relation boo xamante ne bu direct boo xamante ñoom ñu koy waxtaanee seen biir. Eh, mais affaire yi du du limité wul foofu nga Sadio gis nga combat bi boo bëggee dégg dëgg dëgg dëgg combat ku nekk da koy xeexal sa bopp xam nga si yàlla mooy tax waaw loolu loolu mooy priorité en tant que musulman loolu mooy priorité en tant que musulman mais mais Sadio Sadio tuub tuub moom wax dëgg fa yàlla ku nekk jullit doo xaar feebar bi am sa mais est-ce que duñu toll waaw su fekkee ñu ngi seen loolu d' accord naa man Ablaye Mbaye Ablaye Mbaye. yéen yéen yéen yéen yéen yéen yéen yéen yéen yéen yéen yéen yéen dama la la kun kese kun kese la jàppal nañu set ba pare affaire bi du ay set de ay ay jangu sa ma do do yi ka la ko de jëpp mo ko bu la set ci moom barki yàlla du de kenn gënu leen set tubaab yi dañuy sam bu de borom kun kese moo mën a teg do set ngay dind dem dara ay tubaab bi salim mais mën na tuub dellu ci yàlla yàlla moo moo sànni musuma ne nañ ah loolu loolu loolu exemple non non non non bi lay set ay set exemple avec réalité la avec réalité la ngeen déglu ma léegi Sadio ba léegi ko wax ci su ngeen demee ba bon bi nëbbatu ko seen biir kër ngeen génnee ko si mbedd bi na leen envoyé rappel moi rappel moi na la ñu bu ngeen insister rek continuer xam mu ne nii am na ñoo xamante ne rappel moi bi sax lu tax ñu delluwaat ginnaaw. waaw nee na am na ñoo xamante ne naa leen buggal ba seen parti droite bi yëpp dee mu ne dellu. te ah, teewul duñ dellu dellu ginnaaw. genre affaire yi bu amee première solution xam nga mooy lan mooy li prophète sallallahu alayhi wa sallam wax na xam te ne moom ba tey médecins yi ba ñëwee loolu lañ confirmé xam nga mooy lan bi ci njëkk mooy set dañu ne yàlla dafa set dafa bëgg lu set kon delluwaat nañ ci set te prophète bi jàngal ko bu yàgg ñu ñëwaat ñu ne la feebar ba fa mu am da ku nekk toog sa kër loolu yonent bi jàngale na ko bu yàgg boo nekkee si dëkk boo xamante ne dafa am balaa bu mel nii xam nga bu fa jóge yow mi nekk si dëkk bu ko amul bu fa dem. bu kon jàngale na ko bu yàgg comprendre lu mu wax ngeen tuub. léegi di jóge fee di ngeen tuub ngeen jéggalu yàlla. kese comprendre la. kon yooyu noonu ñu réglé nañu ko ba pare te bu ñëweeti kaaw Sénégal comme ni nga doon wax sànq kii bu waxee kilifa diine man dama koy jël si ñaari angle mooy comme li nga wax xam nga xalifa général des mourides montré na exemple bu baax prix léegi dama bëggoon man Sénégal bu fekkoonte ne état bu suñu paree bu yeboon nañ ma jël xam naa waxal waxal kan moo lay si ñu amoon moo lay jël si ñuy wax si affaire di religion même bu fekkente ne état bi xam nga moom moo ko wax ñun xam nañ Sénégal nu muy doxee comprendre ma tey jii bu ñu jëloon tey benn sëñ Bass Abdou Khadre wala ñu jël ak ak boole ko benn par exemple tey mu mu tuddati gaayen boobu noonu ku nekk porte parole porte parole bu bu Tijaan porte parole Ñaseen porte parole kii nii bu ñu waxtaanee ba concerté wu si benn affaire boo xamante ne ça concerne religion comprendre ñooñu ñëw wax ko ba pare argumenté ko parce que ñu dañu nekk si benn religion boo xamante ne lépp lu ñuy def texte moo koy saxal texte moo koy dàq ñun ñëpp kenn doxul ne lii la lislaam wax si lii comme lan la ne la lislaam fii la ko teg foo defee lu la neex yow sa affaire la loolu la maanaam mais bu ñuy wax sa affaire administration wala arrêté kii kër kër jàppal ba xam nga sa sa ministre bi ñu tudd sa sa yaa yaa tudd turam waaw moom na génn wax comme lan la comme bu ñu waxee santé chaque fois rek chaque fois bu ñu waxee affaire xam nga bu ñu waxee affaire santé ah. lan moo tax bu ñëw si affaire santé chaque jour rek ah, ministre bi moom mooy génn am Abdoulaye Diouf Sarr moom mooy génn def discours am ne santé parce que moom si loolu lañ ko fal maanaam si loolu lay dox xam na ñii ñun ñun lijjanti maanaam ñun ñu leen pour ñu lijjanti suñu wàllu diine il faut que affaire bi leer. waaw ñun suñu wàllu àdduna lañ leen jox pour ñu gérer ñu ko. dañ ah, ko yem quoi mais duñu nangu suñu adduna ba pare. bu nangu suñu religion duñu dicté lu ñuy dundee suñu lu ñuy pratiquer suñu diine comme la may ñu leen ko. voilà foofu la. mais état du Sénégal nous sommes dans un pays sous-développé loolu dañ ko. et endetté yokk ko si. endetté et endetté. nous sommes dans un pays sous-développé. trop endetté da ngay suyoo trop. tey jii Chine Chine Chine li muy mën a lijjanti li muy mujj a def li muy mën a maanaam effort bu mu mën a def ci ci coronavirus bi Sénégal mënu koo def attanu ko sax. da koo am dèjà ñun suñu hôpital yëpp dañu am problème. waaye hélas amuñu hôpital il faut ngeen wax loolu amuñu hôpital ay dispensaires lañu am. non non waay waay ay marché grand lañu am. déjà un deuxièmement communication communication dafa des man man solo moo problème communication solo problème communication man naa ci d'accord ndaxte déjà décembre la feebar feebar bi jógee commencé commencé dox on a décembre janvier février mars ñu ñu commencé gis yoo xamante ne yenn signes yoo xamante ne ne Sénégal mu ngi koy ressentir man solo ma xoon ci maanaam politique bu Sénégal waroon na ko mën a jël euh, ci moment entre 4 mois 4 mois yooyu noonu su ko defoon beneen instant ñu dinañ mun a am benn benn laaj benn avance boo xamante ne ci ñeneen mais tey ñii ñun defuñ ko de un deuxièmement ñun lan lañu mën a rattrapé wu mais ci communication lañu mën a rattrapé tey jii nii ñu ñëpp xam nañ fekkee nañ ñu euh, temps paludisme paludisme su amee gars dañuy dem ci dëkk yi dañuy jeunes yi dañuy dañuy mobiliser wu gars yi def loolu loolu loolu la Sénégal loolu loolu état du Sénégal waroon a indi parce que ko indiwoon fu mu toll nii nii ñun lu mbon mbon nañ ci mën a ci mën a yéeg suñu bopp tey ji suñu regroupé woon maanaam xaar yàlla tey jii nii ah, xaar yàlla mag na am na yoo xamante ne nii am na ay jeunes yoo xamante ne ñu ngi fii nii ñu ñu mobiliser la jox leen ay moyens ñuy tugg ci kii di porte à porte di sensibiliser gars yi tey ji suñu ko defoon yow mii maire bu nekk ci kër gi sax yow di nga sentir na yow mii ah gars yi li ñu ma wax nii nii paa booy yi wala li wax nii li ñuy dëgg la naa ci naa ci mën a kii naa ci mën a jéem mu xool lu may rakkasoo affaire yooyu noonu mais loolu amul c'est l'état du Sénégal moom lu mu jëlee da koo jëlee ci kaw mais du ko jëloon ci suuf. Mhm. tey jii nii lii yëpp du ci am. te ci moo gën a bëri. ci suuf moom moo gën a bëri. moom moo gën a bëri. ba tax na nag man man man lu ma considéré man lu ma considéré deuxièmement loolu loolu problème mu tëj problème mu tëj yi problème mu tëj yi maanaam euh, tëj mu tëj euh, jumaa yeeg console gu jumaa yi imaam imaam yi seen bopp imaam national ñoom ñoo ñoom ñoo regroupé wu état état ban tey joxawut ne ñu ndigal ñu tëj wala ñu tëj noonu imaam yi ci boobu ñu ñoo regroupé ne ne nañ tëj jumaa yëpp ndaxte suñ ko continuer nii ni affaire bi day doon day lu ëpp par exemple yow mun nga julli kii nekk sa wet nga sëqat affaire yoonu yenn saa yi sax moom fu ñuy tëdd mooy loolu wala fu ñuy julli mooy loolu mais loolu loolu su amee yow mii yow mii en tant que état munoo munoo ñëw munoo ñëw nekk ci kanamu diine bu doon te nekk yow foo nga nekk ci ginnaaw yow ñoom da nga leen di soulager sax yow ci ah les musulmans ah les jógee ñu wax léegi léegi ah da nga da leen di soulager yow bés boo bés boo ñëwee état yaa wax léegi état nee na état nee na lu mu tëddee jumaa yëpp nañu leen tëj xam nga loolu yow en tant que jul yow soo ko déggee yow dalay gêner mais fekkee ne fekkee ne xalif général des Mourides wax na xalif général des Tidiane wax na ñoom ñëpp ñu ñu ñu lëkkaloo ñu wax ne ah comme que lii am na nañ tëj jumaa yi nañ def lii nañ def lii su boobaa su boobaa yow di nga santi sa bopp waaw état dina dina am dina am doole quoi dina ne ah man de ba benn instant comme que loolu wax nañ waaw comme que ba damay ñëw damay ñëw dooleel leen rek yokk ci yokk ci euh, karaw yokk ci xar mi karaw ba pare gën a gën a organiser affaire bés bu ko defoon benn instant tey jii nii duñ wax ay yenn maanaam am na ay ay 7K wala 9K wala 10K ñu ngi ci toll nii dem de ay 100 et quelque non noonu la demee loolu la rek booy dama mooy problème bi le cas de Touba noo ko gisee. non xam nga avant boobu xam nga lan mooy problème Sénégal problème sensibilisation la ñoom man feebar bi ba muy doog ñëw kii jox na ma laaj yoon mu naan ko ah waaye mbirum yàlla la nit mais nag soo demee ba bàyyi xel daa am ku may dalal la plupart damay tegal France 24 may seetaan allemand yi jaaxle français yi jaaxle sànq rek maa ngi déglu rajo Angela Merkel daa dem ba génnaat télé nee na ñetti nit yu mu gis te bokkuñu même famille da xam ne kooku jaaxle mu jël hôpitaux yi jël hôtel yi def ko hôpital génne vingt cinq mille lits yoo xam ne dañ ko hospitalisé teg ko nii pour l'instant bi xaar gars yi feebar ndax xam nañ ne gars yi dañ fay ñëw feebar léegi su demee ba Espagne tey dañoo yokkaat confinement bi yokkaat benn nit buy dox wax xam na Allemagne ñett la bi benn nit buy dox te amoo foo jëm ñu jël la boo ko Moussa di doog a di ma jox ay laaj mais naan ma naan ko bu tax ñuy ay laaj lii di bi garaaw na saay saay boo xam ne waaw bañ demee ba ay G7 itali bokki Allemagne jaaxle Italie naan ngir yàlla kaay ñu dimbali ma non du feebar caaxaan la moskee ba ma ko déggee xam la maa njëkk a aalu mais dafa nekk feebar boo xam ne lu Ablaye Mbaye di wax dafa nekk boo xam ne dafa dangereux man mun naa ko am dugg si jumaa ji doo leen ko xam balaa may génn wàll naa ko téeméeri nit balaa 10 jours mu génn si man bañ ko tegee 10 jours plus de 5 jours encore mu génn si baa ji mais balaa bu ñuy changé bi boobu rey na Sénégal bi mais su ko mais état bi nii la mën a def dañuy wax man affaire maa ngi ko mais ba ma gëstoo affaire bi nii la mën a def ah doo bàyyi na ba mbir bi nag xaar yàlla ba nekk ci jumaa xaar yàlla mu ne da koy tëj amatul saaf

xam nga frontière dafa waroon tëj bu yàgg frontière yi depuis ba ñu déggee ni Chine am na maladie bi dañoo waroon tëj frontière yi xam la mais gis nga affaire yi da ngeen di xool li nga xamante ne ni moom mooy eh, moom moom mooy wàllum wàllum wàllum wàllum inter-échange entre les états quoi li nga xamante ne ni moom mooy wàllum économie wàllum géopolitique xam nga bu cadre de loolu moom moo ñu rey. parce que gis nga pays yu gën a développé mu ngi fi ay Russie ñu ngi fi. comprendre France mu tëjee frontière am deful deux semaines. dëkk yëpp laa lay wax balaa dee ba mu dee ba tollu fenn le pays commencé. yow fii gars yi ñu ngi doon wàcc mais ba feebar bi xewee Chine ba feebar bi xewee Chine Sénégal yëpp dañu doon génn naan Macky Sall lu lu muy def da ko lu muy def da war a jëli doomu Chine dañoo war a dem jëli doomu Sénégal yi nekk Chine dañoo war a dem nii ku nekk di wax mais Macky Sall moom fu mu toog mu toog fa ne moom du jëli kenn parce que ñun xamuñu woon dayooy feebar bi mais instant yii nii. man ku nekk boo toogee sa kër yow kese di nga xamante ne Macky Sall décision. mais décision décision bu am ah, solo la jël ba parce que boo xoolee yenn pays yi nii ay France ay affaire yooyu noonu la plupart ñi nga fa dugal genre yooyu la gars dañoo dem jëli seen étudiants yi nekkoon gën a propagé virus mu dem foofu. Ablaye toogaay bu yàgg bi danger la a def. seen kër xëy jotaay bi toog ku nekk toog sa kër mais mais loolu du danger yu loolu confinement confinement bi xoolal instant ñun ñun ñun Sénégal imposé guñ ñu confinement de mais confinement bu ñu ko defee rek day fekk ni situation feebar moo ñu toll moo yow yóbbu foofu. Abdoulaye ayi loolu xam nañu ko loolu boo bañee yegg confinement boo bañee ñu yegg confinement yow mi sa jëm bopp yaa njëkk a conscientiser sa bopp baa ñu conscientiser boppam moo tax ku jël ku nekk feebar bi jël voilà loolu laa doon wax comprendre amuñu pour ñu bañ a yegg confinement c'est ça le problème loolu nga mën a si si amuñu moyen de lu ndaw laa ci wax lu ndaw laa ci wax xam nga laa expliqué lu El Hadj wax ànd naa ci de mais lu Ablaye wax tamit moo moo moo nar a mujj nag si si si bu ñu si bu ñu nanguwul lu Ablaye Mbaye wax waaw d'accord nañ ci instant yi instant yi toll nii instant yi toll nii sénégalais yu bëri dañoo matirul fu fu ñu feebar bi toll. loolu problème bi. c'est ça mais xam nga fii fii dafay. loolu loolu loolu loolu loolu

lu mën di ñàkk marché yi ñu koy wax lu ñu tëj ñun ñëpp boo waree mu leer lu mën di ñàkk dafa am tey kii xëy di liggéey parce que tubaab la am na liggéey yoo xam ne tey kenn mënu ko arrêté sport da ngay dem liggéey non mooy yow booy liggéey yow mi liggéey yaa war a jël français matuwaay yu war yow moyen lay voilà voilà léegi nag ba lay wax Ablaye Ablaye xam nga la ma wax yow yaa ñëw boo la ba yow li ci war lépp lépp nga def ko mooy lan nga dem ak sa xel non kii dafa wax ñaari wax xam nga essai la ma problème d'accord naa de mais dafa dafa am ñaari wax yoo xam ne dama koy wax balaa ma kaa fàtte sànq dañuy wax ne association imam yi nekk fii Sénégal am na 300 millions association des imams xamoo ban moo crédible ak ban moo crédible commission linéaire rek am na fi 192 000 kon bu ñu bu ñu gëmloo ne association imam amul benn association imam boo xamante ne ci la imam yëpp tënk. baaji bi amul association mu ne dañoo war a diine yi ñu waxtaan mais moo tax moom mu wax bu ay waxee wax ak li dama ne bu ñu waxee kilifa diine maanaam damay wax côté communication mooy ni nga waxee communication dafa am problème communication boo gisee mu am problème mooy benn nit kese mooy wax te par exemple tey bu fekkente ne bëgg nañ communication bi gën a jàll dafa am ñoo xamante ne bu ñu taxawee wax par exemple porte parole des murid bu génnee taxaw wax murid yëpp ay adhéré ñu am nañ sens boobu dëkk yeneen dëkk yi amuñu ko cest loolu du lii quoi maanaam du lu négatif mais lu positif la sa yeneen dëkk yi amuñu xale général may wax la ni sànq dagguma la de man kay wax ni sénégalais moo dëggal bopp non kay moo la xoolal gis nga li nga wax moom la wax sénégalais dëggal da ngay jaawale communication sensibilisation ak ay message yu ñuy véhiculer non non xam nga sensibilisation moom am nañu est côté côté sensibilisation commencement bi dañ doon sensibilisation sensibilisation du doy loolu du doy loolu sax yéen da nga war a di sensibiliser yow sànq comme El Hadj du wax si wàllum confinement gis nga gis nga sénégalais ñun ñaanuñu yàlla ñun ñaan ñaanuñu yàlla yegg si wàllum confinement parce que xam nga la moo tax sénégalais taabu taabu lay dund da gis ñoo xamante ñun nekk ñu pays comme li ngeen di wax ay pays yoo xamante ne ni ay pays développé la ñun sénégalais gis nga la mais nekk moom mooy xam dayooyu feebar bi dayooyu feebar bi na gis nga instant ni ay Europe fu toll yow nga foog na ne lu toll ni Europe ñu tëj seen boutique yi tëj lépp lépp lépp li nga xamante ne mooy activité foofu noonu lan moo tax ñu def ko lan moo tax ñu def ko c'est parce que feebar moom moo toll noonu wàllu wàll wàll feebar bi nu muy wàllantee moom moo toll noonu ñu yàlla mu yegg Sénégal mais bu ñu bañee nag confinement am fi mais sénégalais bu nekk liñ la wax boo xëyee boo génnee sa booy génn sa kër raxasal sa loxo yi bu mu set ak saabu nga génn bul nuyu kenn loolu yomb a bul axalaat kenn jarul biisante kenn ñu koy am di daw ñu koy am di daw mais loolu loolu loolu xanaa nit ki moom wax dëgg fa neex yàlla bu dee yéene nga jàmm sa waa famille ah yow mu leer essence yi boo boo boo boo sentiree symptôme yi li nga wax signes yi boo ko sentiree rek waroo too xaar sax ñu lay wax yow demal nga nga def prélèvement yeeg wala nga def parce loolu moom mooy nit parce feebar bi su ma ko amee man si biir kër gi bii nii ñii mujj ci kër gi du ñu bari loolu soxor la loolu mais xool kaawu rek yow sénégalais bu ñu demee ba nga xamante ñun suñu kaay toll nañ foofu noonu mais ki ñëw jóge Italie ñëw Touba eh, moom moo ñu tooñ moom moo la plupart moom mooy ñoom ba léegi ba léegi ñoom la ba tey moom la yow xoolal te loolu benn nit kese la de da lay leer na ni da lay leer na ni kooku ni mu ko amee ba wàllee ko kenn bu ko amaatoon fii nii ba wàlle ko kenn maladie bi noonu lay noonu lay lawee di law mën na nekk sax moo laa moo tax ma wax la loolu moo tax ma ne la man bi ma gisee nii daa jëlee mesures yi kërëb kërëb jàppal bàyyi état bu ngi bàyyi si loolu xel quoi xam na parce que fii ya dégg nañ tey information yoo xamante ne ñu ngi wax naan am na ñeneen ñoo xamante ne jóge nañ kaaw comprendre nga am na ay móor yu ñëw wala ay ay ay ay gars yu ñëw yoo xamante ne ñëw nañ seen gaale yi seen waa gaale yi di leen nëpp signalé wuñ leen xam nga loolu dafay am yàgg nañ ko dégg am na ñoo xamante ne affaire mën na te fii Sénégal xam nga dañ jël benn aspect bi waaye benn affaire bi ñu foog ne Sénégal ku ci feebar hôpital ngay jëm. 90 pour cent Sénégal bu boo fi feebaree xam ay kel lañ lay ay bisaab affaire buy yow comprendre balaa ngaa comprendre ne corona moo la dal. instant bi l'heure est grave. ku fi sentirati yooyu noonu da nga dem hôpital. comprendre day raxasoog saabu normalement. comprendre nga affaire yooyu comprendre nga moom yàlla nañ ci yàlla musal parce que mënul nekk. mënul nekk ah, xam nga parce que man mën nañ la sama kër ma xiif ñaari fan. waaw yow xam la sama jabar mën na muñ xiif ñaari fan mais barki yàlla mënuma jàkkaarloo sama doom mu naan ma papa damaa xiif. waaw dama koy wuti xam la te sama ñàkk bi génn bi moo ko waral damay génn force. force comme nan la kon balaa ñu yegg foofu xam nga. discipline waaw nañ nañ na mais discipline boobu tamit dama ciy waxaat benn affaire xam nga man sama constat bi ma def sénégalais boo xoolee mooy ñi ñuy wax na dañoo war a dañoo dëgër bopp dañoo war a kër kër sénégalais actuellement ñu ngi def lu ñu war a def boo génnee mbedd yi commencé na wéet gars yi ñu ngi commencé respecté affaire yi gars yi dëgëruñu bopp problème yi ñu am yëpp mooy lan la xam nga communication bi état bi di def ak gars yi di fàqee kaw di ñëw fii ñaari problème yooyu la ñu am. man de sensibilisation. waaw sensibilisation bi état bi war a def ak affaire yooyu. loolu mooy suñu problème ak gars yi di fàq di bu baax a baax. mais sénégalais boo génnee si benn bi ah, xam nga dañu war a def. recommandation xam nga instant yi comme ñun ñii débat bi yëpp ak ak ak ñun ñii nga xamante ne ñoo fi toog yóbbante bi benn kese la mooy yóbbante bi nga xamante ne moom moo ñu war ñun ak yóbbante bi nga xamante ne moom moo war képp koo xamante ne Sénégalais la gis nga instant yi fu ñu toll nii l'heure est grave comprendre nit ki nag boo bañee jëlee feebar bi sa biir kër andi ko sa biir kër boo booy booy sa kër balaa ngaa génn na nga na a sol loxo ba mu set wecc jël nga ak mais c'est simple saabu cherul 200 lay jar ndox mu ngi fi am na gars yi dañuy naan ay ndox ndox boo raxasoo moom ñàkkul fenn lu robinet coupé coupé coupé coupé yooyu ay prétexte kese la yooyu nañ ko jël instant bi jël non état bi ndox bi dina ñëw loolu beneen débat la mani fii nii loolu beneen beneen affaire la gis nga ndox boo raxasoo loolu amul foo xamante ne ñàkk nañ ko si àdduna